누가 une explosion de saveur dans une même et seule bouteille Free yëpp nous sommes au Sénégal c'est anam yu sel naturel Jusito pour seen goûter dormi collation ca bureau ba ngénte bepaheo. bépp jus orange ngir may leen cawarte ak tonus jus corossol amna, na lol si yaram ak ay ferñeenteem yu am solo gingembre bi moom dafa baax lol si gour ak ay vertu itam si organisme Pui bina de day wàññi toy baax si yaram tayit yi leen sawarloo jus oh, oh dina yok sen katan boole ci vitamine rek la ñi bëgg so naturel nak vito soo exsident pour fête bu monti doon te baax lool si yaxu gune ak mag lepp nak nek ci emballage civilisé tour ak jus vito da ngeen am choix vito jus et so existe en bouteille de 1,5 litre et 33 centilitres vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi asalaamaaleykum yéen sa safoo 5 TV te di ko seetaan mbégteeg bànneex la ñu am maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di leen baaluwaat àq di leen wax rek ñoo ngi ziar ñi tëdd si la lopito yi yal na yàlla fëgg seen bopp ñi caabi féete ginnaaw na leen yàlla may liberté yal na suuf fooyof seen kaw si dérëjey wa sallam nege ni daaw nag am na ñu euh, tabaski waaye ren nag jaam pexeem yàlla ak dogalam ñoom nekkatuñ fi waaye ñenn yaa ci kaso bi ñenn yaa ngi ci jafe-jafe ñoo ngi leen di ñaanal rek yal na leen suñu borom teggil natt bi waaye nag tey dama dalal ndaanaan xale boo xam ne tark Dakar la mi ngi yëngal réew mi waaye mën loolu muy def nekk ci clip bi di ko toj waaye chaque mercredi rek boo demee fee ca vok euh, fekk ko fa muy ànd ak Momo euh, bu baax. ah sa zone baax na de. ah waa gis nga non man moom yii laay def <laughs> non Fia lii moom. Ah, sa yëf la. dama doon sàng xar rek nga woo ma mën naa ñëw. <laughs> xam nga lii dama koy sàngee xar li man lii du sañse lii xam-xam nañ li mm. mais ziar naa la di kontaan ci invitation bi mm. xam nga di ziar ñëpp di mm. bëggee ñëpp di nuyu waa réew mi ak waa biti réew mi ñuy siifur mm-hmm. xam nga di kontaan nag bu baax a baax a baax mm-hmm. di ñaan sunu borom mm-hmm. ñu commencé bisimilah yeggaleeg alhamdulilah kontaan naa daal di nuyu ñëpp nag waaw maa ngi nuyu sénégalais yëpp di masaw tamit kii ah, ñi nga xam ni semaine bee passé ci manifestation yi ñoo ci am ay jafe-jafe mm-hmm. ñi am ci moor mm-hmm. maa ngi jaale seen famille yi mm-hmm. di masawu Sénégal bu baax a baax a baax a baax di ñaan loolu moom du ma ne sax yàlla na fi géej waaye yàlla na fi yàlla bu mu fi amati. waaw mm. ah, ndax lu méttee noonu Sénégal xamu ko. waaw ah, ñun xamuñu loolu ñun jàmm ak salaam la ñu xam. Mm. bëggee kafoore. Mm-hmm. loolu la ñuy dund waaw ambiance non càccambal ñun loolu la ñuy dund. <laughs> càccambal lañ <laughs> naka nga dundee manifestation yi ba nga xamee ne réew mi métti na comme ni ñu ko waxee ay innocent rek ñoo ci gaañu ay xale yu ndaw ñàkk seen bakkan réew mi jaxasoo nag. waa kii rek fii a rek parce que nag mooy li ma la wax léegi Sénégal xamuñu loolu ñun Sénégal ambiance la xam fii a invité ma këram fii wala ma invité fii a sama kër fii fii a togg lu neex ñu toog naan ataaya xam nga parfois ngéwél taala ta taala andi fa xéewal <laughs> ñu togg ceebu yàpp am soos am nen xam nga naan si naan ataaya ñun yooyu rek xam ah. mais kon loolu tey bu bu ko yàlla defee mu dal ci réew mi mhm. ñun ñëpp dañoo am lu ñu metti mhm. trop donte nag kenn gisuñu ñu génn ci tele yi wala gis ci wax ci média yi mhm. mais am nañu lu ñu metti comme tous les sénégalais ah, parce que ñun xamuñu loolu di ñaan tamit jàmm ci réew mi waaw di ñaanal suñu njiitu réew mi nga xam ne moom la fi yàlla teg ñu nangul ko ko yàlla na yàlla na yàlla na yàlla na ko yàlla woyofal yen bi mm-hmm. ndax mu mën a àttan yen bi ba jàmm am Sénégal jàmm dellu si Sénégal mm-hmm. Sonko tamit ñi ngi koy ñaanal mm-hmm. moom it li mu bëgg xëy na moo ko xam bu waré am ci mom rek suñu borom oyofal ko ko bam bam bam mu am ci mom mhm. wa ñi ngi ñaan ci réew mi jàmm daal fia té ñaan loolu mom mhm. suñu borom mussel ñu ci mhm. wa ñi ngi ñaan jamm bu baax ay ayca dañuy dugg ci li xamné mo waral waxtaan bi tay dañ leena wax spécial ndewenal euh, mom nak la fas yéenee toogal euh, ñu waxtaan mu nekk fecc kat euh, bu mag ma sha allah nekk ci clip bi waye keen gisu ko ci dara comme yenen xalé yi sinap fii caay prek mom day liggéey lu muy liggéey bolé pat tay nak yéena ko fajar ha ah, né ko tay mom fo nga ñëw waaye lu mënu ñàkk fa ak moom mu nekk nit ku baax euh, ji li ban année nga dugg ci fecc ah waaw loolu loolu nag yàgg na parce que su ma juumul. 2005. Hmm. cinq waaw su ma juumul cinq xam nga léegi léegi sax yaa ngi may wax waxu clip. Hmm. mais mënu la woon da nga wax rek ma ne la clip yi ma fecc bari waaw parce que ku ci nekk muy Pape Diouf muy Waly Seck. Mm-hmm. muy Fallou Dieng. Mm-hmm. bu ma limee sax duñ fi jógee. Mm-hmm. mais ku ci nekk rek xanaa dama naan troisième clip laa la feccal. mais feccal naa la benn ñaar ba ñett wala ba ñeent. foofu laa toll ak ñoom ba tax na kon réew mi boo doon wax dama naan man feccal naa ñëpp clip. waaw dañ lee fois bi nga xam ne laa waroon a feccal Youssou Ndour clip Pape Moussa di ma woo mi ma fekk Gambie. Mm. mooy clip bu Sëñ Fallou bi Youssou Ndour way kon par exemple tey bu ma feccaloon Youssou Ndour clip boobu. day may fekk mu feccal ñëpp. Mm. noonu la demee fii moo tax 2005 moom lañ dugg ci fecc. Mm. comme ni nga ko waxee boobaak léegi nag ñu ciy liggéey. waaye du ma ne sax yam fi ñu war a yam mais. yenn yi yaakaar ni kilifa mo la ci dimbali. Mm. parce bo amé kilifa tay fiyaa mu la nan fi nga yam jilu jom nga def li mm. li du sa li du sa wareef waroo def li voilà li du sa cieur mm. kon pour man. tay bu la yalla dimbalé tout rek da ngay am ma bu baax bo xamné wa waaw du la dégg ci ay détails ak ay yef ba tax na sax man bi ma bi ma légui léegi ngi lay toj nan la tay am nga lu kenn amul parce que man mom duma ma pas du dem ci invitation mais faralu ma di dem parce que nak xam parfois wax ju bari kon bax bàyyi ma bàyyi ma yem foofu <laughs> ba leneen ñëw. ayca da nga judd ci keur ngeewal wala. déedéet judduma ci keur ngeewal mais nak sama yaay ran fecc. sama yaay Fat da ran fecc ma ngoy nuyu au passage. Mm. yaay ju bax tete ñu. moo tax wax dëgg yàlla namuñu alalu jàmbur. Mm. fiyaa yoruñu ay jaas di agresser mm. parce que nak tay bu ñu tegoon lu ñu mënul. tay dinañ dinañ dinañ yor ay jaas di agresser ngir bëgg am dara. mais danaan jilu looy am rek amee ko ci fulla amee ko ci fayda amee ko ci dignité kon xam nga kon kooku tey bëgg nañu baax gide nañu ci pour ñu baax waaw mais sama yaay moo doon fecc di ànd ak Yves Niang euh, di ànd ak tamit sama papa Salam moom ku xam na ne sama xarit la dafa mel ni euh, deret fenul foofu parce que papa Salam ni mu nekkee sama xarit xam naa ni yëg-yëg bi bi mu amoon ci mook sama yaay bi ñuy ànd di fecc nekk euh, bale sumbulu ay temps lu yàgg nag xam naa ni looloo tax moom mu bëgg ma bëgg gi ma bëgg cofeel gi mu am ci man xam naa ne looloo tax mais sama yaay nag da fecc. Mm. waaw moo tax jógee di fecc kenn terewul sa famille. sama ci mm-hmm. waaw sama yaay nag moom moom dafa faral lu neex doomam rek neex na ko. Mm-hmm. parce que instant yii nii maa ngi nii am 50 gel. xale yi la. waaw 50 gel rek laa am bariwul fii ah 50 <laughs> gel rek laa am parfois ma kii fii parfois ma kii fee xam sama réalisateur xam na li may wax loolu aayul. xale rek laa moom de am na 60. Bamba Tara mi. Bamba mi. am na 60 la. waaw parce que bi muy dugg léegi rek mi ngi xuloo <laughs> waaye Bamba doo jóg ci xuloo de. aussi. fi mu toll a yow koy sëfa jees yeer dina la rey de ay waay Bamba Bamba sa tur bi laa kii waaye. Bamba yaa bon Bamba kii. ñu tuddee turi ko ñoxor ñoxor yaa bon ceeb. mais fii ah noonu la demee. Ah. sama papa nag bëggu ko woon. Mm. parce que paa bi bëggoon na euh, ma jàng. Mm. parce que xamoon na tamit dayo gi ma amoon ci jàng. Mm. fii ah, man daan moon génn ci. waaw première déedéet cinq sax sori na. deuxième barke Serigne Bamba. damaa mënoon a jàng pire. boo xoolee sax man comportement boobu laa gën a yor ko comportement aar waaw. parce que man bo xolé ñu bari dañ ma xoy bo xoolee ñu ne ma non yow jil yow mum tubab nga da nga juux ci aar bi nii rek mais tubab nga. Mm. parce que tamit sama papa loolu la bëggoon ma nek sama papa dafa bëggoon ma jang ñi nekkon rang bi ci ginaaw yépp ku ci nekk tay jangal na la fecc mbaa ma jàngal la tëgg. waaye di ñom ñoñu ma ngi masaw seen wajuri sem de nga nekk ci classe gi ñi di jang non fi ya xamna la def. Mm. sama kay la doon jël def ko ay baguette man kay classe bi moom dayam rythme mom ki toog nii moom daf may jàppal gaam kee jàppal ma gaam keneen ki ci ginnaaw bu mënee way way ñu yëngal mais man moom noo def moom ma ambiance ci ba ba branché nii jëm fii no loolu man dama koy loolu moom man foog laay nekk keneen ke mooy nekk fee ak ak ak waa mais man moom li féete nii <laughs> foog laa koy yóbbu. yaa ko moom. non foofu maa ko moom foog man di ambiance nu ma neexee. ayca nga xëy toog ñu woo la ne la dañ la soxla ci clip sa premier clip naka la la def nga xëy rek ñu woo ci clip sa premier clip. waaw parce que xam nga nag Kia man. xam naa est nelaw nga guddi googu war a xëy war a tourné ji kii waaw xam nga nag man lan mooy sama problème Kia. Hmm. li ngay gis nii lu ñëw rek. Hmm. man aw ma kii boobu maanaam euh, problème boobu comme hmm. suba ma dañuy dem Amérique. aw ma man problème boobu man aw ma Kia man non man damay dem Amérique déedéet man lu ñëw naturellement. parce que nag même bu dul dara ay taalibi lañ te taalibi Seex Abdou Khadir lañ. kon yàlla dimbalee nañu lool dimbalee nañu dara réewul suñu bët. mais nag. du ma ko fàtte mukk sama première clip du ma ko fàtte xaw ma euh, Ndella nan daal su ma su ma juumul xalaas xaw ma waaw su ma ah, juumul. si bokk nga clip bu neex. loolu loolu laa fee ci deuxième clip su ma juumul Fallou la moomee vent. moomee vent moomee vent. Mhm. ba ci grand ñu fa njëkk a dugg ak Waly bokk naa ñu fa njëkk a dugg ak Jibi Daraame Jibi moom fa njëkk a dugal ñu dugg fa ak Waly. Mhm. waaw mais man. Euh, euh, événement yooyu noonu yëpp taxul mu rëy sama bët wala ma waaw parce que man moom noonu la waaw mhm. man man daal xaw la xëy na nag taalibe gi may dund moo tax mhm. événement du rëy sama bët mhm. waaw ba ci seen muy lu mu doon du rëy sama bët waaw man bu may ñëw yi na mën sa laa bëggoon ngeen euh, bokk ko mais nii la demee sa digganteeg euh, euh, fecckat yi mais en plus star gi ngeen di jaay nañ ko wax tey balaa ñu leen a jot wala invitation yu ñoon di bi fii dem defaru lan moo waral euh, ku leen ah, xaar ma defaru sax comme esar gi ngay wax kay dañ koy ñoddi waaw faaw ñu defaru mhm. parce que nag moom laa la wax xam nga lii nii tey ñu bëri na ma yàlla baa dañ koy tëbëskee mais man dama koy sangee xar mhm. kon xam nga day te fia bu amee xaalis faaw nga faaw nga xaw a réew quoi am film non waaw man moom dama yar xaw ma nag parce que fecckat yi du ma la fen yoruñu ñenn ñi ay daalu 7000 la ñuy sol ñenn ñi ay montur 1500 la ñuy takk mais nag boo xoolee montur bii ah bamba zumal li bamba bul soxoree bamba la muy ñaane bamba zumal li bi nga takk nii ñaar lay jar. 500000 lay jar. 500000. fiyaa fiyaa waxantuma de. d' accord 500000 lay jar fiyaa xam nga ne ci fecckat man maa fi sol daalu 150000 daalu 100000. yow mii barki Seydina Mouhamed waxantuma bu la ne yow. non lay fekk foofu ah, ah loolu laa la bëggoon wax dama doon bañ nag xëy na ki la kii. dama lay euh, fekk foofu. yaakaar ne pareen saa yi da ngay naaw tudd ko yëg moo tax ma <laughs> waar. mais xam nga liggéey bi moo ñuy yóbbu foofu noonu. waaw dé dégg naa parce que Sénégal 5 moom fa dëgg neex yàlla chaque samedi euh, mi ngi vok. Euh, dégg naa vok kon moo fay dëgg ko fay dëgg nag Ndiouga Dieng la ñuy woowee baayam te fi yaa mu demul soirée mu moo jeex donc sa digganteeg mu moo jeex nga bàyyi ñëpp chaque mercredi yaa nga soirée ba fa nekk fa di fecc lu rëy waaw xam nga kooku tey bu may wax sama digganteeg moom faaw ma tegle sama tank mhm. defaraat ni bàmb dag may jël bu baax ndax ma wax. parce que nak koku waaw. parce que fiya xam nga ni tay dara tay dara nekul hasard tay jour bi ni mhm. parce que deug la ya ma pour ma ñëw émission mais tay la wara jot sama xar. Mhm. bu jógee ci Momo kon xam nga koku bayiwuma te du tabaski rek. yalla bima tim xamna xam korité damay nelaw mu woma ma ne ma ndax amu job wonala mu ngóone tamit woo mu baax ma ma jóob may ma moo ndeysaan mhm. mu ngóone tamit woo ma ma yaasin ne ma mee jiili ndax woo nañ la ma ne leen waaw woo nañ ma ñu ne ma waaw say ginaar mi ngi ñëw sa enveloppe mi ngi ñëw waaw kon kooku yaakaar naa ni jëlul seen bi rek mhm. ni ma jiili yow yaay gérer seen bi bañ na ko ba foog kuy yéeg ci kaw seen bi muy waykat muy feccikat sama engagement la mhm. ndax dafa jël seenam teg ko sama loxo kon xam nga tey loolu rek dèjà bu fa yemoon rek. ñii mhm. <laughs> de laa koy def di ko ruq boobu nooy barki sëriñ Bamba mbàccum gerte. <laughs> Bamba xàmmee nga waa ji <laughs> ah Bamba maa bëri filig nag barki sëriñ Tuubaa resey xale yi mbaa nabewuñ ma resey te dama ko bëgg a dagg moo ko daggee mbaa di ngeen ma kii ah. yéen ah. ay jaam ngeen filimu resey ngeen am ah. mais mu moo jee mu nekk koo xam ne nii wax dëgg yàlla ku baax ci man mm. sama sama lépp la kooku barki Seydina Mouhamed sama lépp la. Mm-hmm. koo xam ne nii daf maa bëgg ba daf maa rus mu moo jeen mm-hmm. loolu ñëpp xam nañ ko daf maa bëgg man ba daf maa rus. Mm-hmm. jël nag lu jublu si seen mbeeg wàllum fecc meeg lépp bañ na ko ba ba moo boo dajee ak moom sax ci fecckat di ko wax ay waxu kii danaa la yee bàyyi ma jox la numéro jiili nga woo jiili kon xam nga ne kooku joxuma bopp rek rocc la amee. Ah, d'accord cest à tey am na ñuy bëgg di ñëw si euh, scène bi bëgg fa laa fekk moom moo da nga leen parce que dégg nee naa la seen bi lépp seen bi man la ko jox. Mm-hmm. muy foog muy feneen bu ñu demee feneen tey man bu ma taxawee képp ku bëgg a yéeg man maanaam videur bi bàyyi ko mu yéeg. Mm-hmm. wala diw ak diw ñoo war a yéeg ñee bu leen wala keneen bu mu yéeg ci kaw seen bi. loolu man la ko jagleel man. mais est-ce que parfois doo ci am jafe-jafe sa diggante ak yeneen danseurs yi bu ñu ñëwee ñu bañ ne duñu yéeg. waaw parce que xam nga parfois. waxuma parfois yow fi yow rek fii à yow ci nit. Hmm. parfois da ngay soxla sa bopp. waaw ah, rawatina nag ci wàllu liggéey boo xam ne. ñun voilà ñun ñu koy def ku ne xam na ne mate nañ suñu boor. waaw hmm. ah, man waxuma la quatre-vingt-dix minutes sax laay fecc waaye man damay fecc damay damay dem ba prolongation. Hmm. beneen saa yi ma dem tiro bit. ndax mat li ma doon man ci kaw scène bi. kon nag tey par exemple parfois duñ ne sax duñu bëgg ku ñu wàlliyaan si. mais pareen dañuy soxla suñu bopp na mu jàkkaarloog fan si. jox leen lu ñu miin ci ñoom. Mm. parce que tamit yow yaa ngi ñëw foog xam nga ne carrément jiili ña am na fa benn parti boo xam ne jiili Papa Ndiaye ñëwal lañuy wax. Mm. loolu parti boobu sama parti la man kese. Mm. léegi nag parfois ma seetlu ne bu ma ñëwul wala bu ma ñëwee te yéeguma parti boobu public bi dañuy demander loolu. kon xam nga tey kooku même bu fa Papa Ndiaye woon ñëwoon. ñoom soxlawuñu Papa Ndiaye jiili ña lañ bëgg ci parti boobu. waaw moo tax parfois nag nga ñëw videur bi du la bàyyi wala parfois sax du nekk suñu coobare parfois nga ñëw. ñu wax ba sonn videur bi nañu non yaa ni woon tey bu kenn ñëwee bu kenn yëg da dañuy wax ba sonn wax ba àllu parfois ñu xët jàppanteeg ñoom mais doo ci mën dara parce que téye nañ ko téye nañ ko mhm. parfois nag lu ne loolu moom ne nga ciy dégg mhm. tey di nuy waale sama mag ju baax joo xam ne Amady Badiane mhm. nuy Ameth Thiou ah Pape Moussa Papa Ndiaye Thiou sama xarit kon am nga relation yu baax ak artistes yi say xarit lañ doo leen doo leen diirante mbagg am fet defante bi ñooñu sunu mag lañu yaakaar naa ne nag xale yi moom man seen mag laa. Mhm. ah parce que lu tax seen. xale yi nga nekk seen mag ay ñan. te nga maa bañ a lim loo. non vas xale yi waaw lim ah, lim nga mag ñi ñëw nga ba ci xale yi bëgg a tëb. waa ju tey ku ci mel ni la grand danseur njàpp. waaw Fadel ak ñoom concert googu noonu yëpp. Fadel da dalaa ragal moo tax ñëwul de. non pas ragal moom sama rakk la. xam nga ne diwoo bi diwoo bii la ragal. <laughs> moom suma rakk la <laughs> mais nag. mu yàgg nag tent rek a fa yàggal. non non non waaw moom moom nag ay ñaar bëriwul nag ay ñaari kilo tent rek lay jël di ko def ci bopp bi <laughs> ñaari kilo tent rek moog booy njàpp loolu la ñuy jël di ko def seen kaw bopp yi bëriwul. mais ragalu ma mais kooku suma rakk la. Mhm. Fadel suma rakk la ñu nekk ndoo Grand Yoff. Mhm. Ndeysaan mooy li may wax rek. Mhm. ñu nekk Grand Yoff man ma nekk fa xale boo xam ne man lañ njëkk a man lañ njëkk a gis boobu Fadel. Mm. mën nañ ni mi ngi feccantu fe mm. feccagul. Mm. kon moom suma ma rax la di ko nuyu au passage. waaw mais nag mag ñi man sumay xarit la parce que bëgg nañ ma jox nañ ma cër léegi-léegi maa ngi la koy wax maa ngi naan la grand risque baaba mi ngi may woo naan ma tey dañoo am benn tournage. kon xam nga tey loolu te man raxam laa rax-raxaatam laa. kon bu ma nawlooyee tey ba di ma woo na ma ji bi dama laa sentir ci yëf kaa ñu tourné benn clip. kon kooku tey bu bien am na ko. ku ci melni ni ëmadi tamit noonu la demee ak man amee cu noonu la demee ak man Pa Moussa moom ñëpp dañ ko koy wax wax ñu ne ko yow da ngaa bëgg jiitu ba da nga koo rus mm. Papa Ndiaye suma jumeau la mm. yaakaar naa moom moom lu waaye gàtt gàtt dégg xam nga ne moom suma jumeau la parce que ñu mm. ci ay vidéo mm-hmm. toog na fu ne mm-hmm. wax ko mm-hmm. suma mag la mais suma xarit la boo xam ne dafa maa bëgg yéene ma Papa Ndiaye tey bu amoon buñ doo bu yoroon dërëm kase wala mu yor ñaar dërëm kase mënu koo xaaj ji li ñangi la koy jox toog kon kooku am na fu ma teg am naa am am naa cër ci moom kon ma mag la mais suma xarit la suma jumeau la waaw kon ñoom ñëpp relation bu naagis la am ñoom parce que man nag fiyaa man du wax mm. bëriwuma sax lu may wax man liggéey laa gën a xam mm. te ci liggéey laa ne fu laak fayda respect bëgg li may def mën ko mm. toog jàpp sama ñaam am nga ay projet yaa ngi waajal lu bëri est-ce que tey pare nga pour créer sa troupe boo xam ne yow yaa ko moomal sa bopp am say fecckat mais aussi nga waxuma sa diggante ak Fatou Sarr xam ne yéen ñaar damay gis va complicité bi am seen diggante. waaw damay ñëw ci Fatou Sarr d'abord soog ñëw ci projet yi. Mm-hmm. Fatou Sarr suma doom la. Mm-hmm. waaw moom suma doom la parce que. moom comme li may wax rek moom it dafa bokk ci ñi nga xam ne man dama ko yar Grand Yoff du nuyuwaale au passage sama sama sama xarit moom sama jumelle la Ndeye Gueye Junior moom moom moom takk na ma ba yàqal na ma man gel yi ma waroon a am Italie ak ay yooyu yëpp moo ma ko yàqal maa mel nit gelu rab ci man Ndeye ma nag bàyyi dugg si yàqal yaa may ah, mm-hmm. suma doom la boo xam ni mm-hmm. maa ko yor Grand Yoff mm-hmm. moo tax bi mu toogee ba yenn instant mu wóor ma ne il est temps nag mu ñëw ci moo Dieng ma xëcc ko ndànk andi ko ci Momo Dieng. kon yaa ko fa indi. waaw. ah d'accord yow yaa indi. Momo moom même boo jékki woon jékki gis fa benn bëy sax jàppal ni ji ji jiilee ko fa andi. bëyu jiili la. waaw bëyu la. Mhm. yow daal amal njort boobu yàgg bàmb bu ngeen jékki woon jëkki gis ci kaw seen bi bëy sax nee leen bëyu jiili. <laughs> Ah. jiilee andi bëy bi. Mhm. waaw kon Fatou Sarr suma rak suma xarit suma doom maa ko andi ci maa ko andi ci Momo Dieng mm. mu fay daan doole moom it mën ko lool ñëw public bi accepté ko muy def lu nice mm. projet yi nag moom moomu Fatou Sarr sama groupe la bokk mm, d'accord ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne Fatou Cissé kulim Dioum beneen Fatou Sarr bi nday yërim ah nday yërim sama yaay la waaw nday yërim am nga yaay ju baax nday yërim moo njëkk bàmb nday yërim mi muy wax moo njëkk a yóbbu ma soirée Ngoné Ndiaye Géwal ñu pare mu yóbbu ma soirée Salam Diallo ba pare wax Sidi Diop mu woy ma woy wu rëy fii borom bari na nda yérim nekk nit ku baax vraiment man ku ma xam-xam ne man samay dem soirée bariwul man même Momo Dieng laay dem seetaani dégg naa dëgg à part Momo Dieng Wally sek lay dem setan parce que tay euh, je suis animatrice amna droit dem ci yenni mais bëgguma ñu may gis fu nek te ma dem rek liggéey mu fa yob wala soit dama am avis sañse dem tok déglu musique bëggal sa xol bëggal sama xol parce que tamit même bu dul dara mm-hmm. meloman nga. voilà waaw yow fi ya ah, yow kula xam-xam ne meloman nga da ngay déglu musique yow da ngay dund musique. waaw dund ah, ah doomu géwël wala nak ah waaw c'est normal. Sini Wade day sama mam, Jaara ñay sama mam. non yow bo duggé yow. maa ngay sama maam Maseeray sama mam, paté sama mam. Ndiouga jangay sama maam. yow boo bëggee musique mi ngi mel ni. tubaab ku tubaab bu dem Paris kenn du ko laaj loo fi def. <laughs> yow boo bëggee musique mi ngi mel ni tubaab bu dem Paris kenn du ko laaj loo fi def mais nday yirim mi ngay wax sànq mhm. danga wax ku baax koo xam ne moom dafa juux ci aar mhm. mais aar du cëram parce que mhm. nday yirim yor na jikko boo xam ne yor yor yor yor yor yor jikko yi nday yirim bu doon góor wàlliwu lay doon waaw ndax baaxaayam moom ak beneen Fat Sarr bi ak Fat suma doom yëpp ñoom ñëpp ku ne ñoom ñoom ñoom moom amuñu ci man sago waaw ñoom ñoom amuñu ci man sago bañ na ko ba ñoom ñëpp dañ maa rus lu ma neex laa leen di teg lu ma neex laa leen di yen mm. pour wan leen ne ñoom ñëpp tey ku ma ci woo nga wuy ma keroog bi may tourneel sama papa ji Doudou Ndiaye Mbengue mm. ñoom ñëpp bi ma leen woowee dañoo ñëw taxaw sama ginnaaw jàppale moom ma tourné clip bi ci jàmm ak salaam mm. kon am naa group boo xam ne nii tey même bu dee vingt personnes sax ku ma ci woo dinaa la indil vingt personnes yoo xam ne nii yëpp sama groupe la man man Djily parce que yaakaar naa même bu dul loolu xam-xam bi mu ngi fi. Mm-hmm. dayo bi mi ngi fi. Mm-hmm. parce que 2005 ba léegi du ñaari at. Mm-hmm. du deux mois du cinq mois. dëgg la loolu carrière la. xëy na nag carrière bi comme ni nga ko waxee nekkuñu ci ay détails moo tax. carrière bi mënul salfaañewu dafa war a mën a régler rek dem yoonam. ba pare tamit ki ñuy àndal parfois ma dégg ñu ne ma jili da nga nduróog sa patron dëgg mais. c'est vrai man damay waaw man damay ñaan yàlla sax nduróog moom. parce que tamit way kuy dund ku ne wala kuy ku waxuma ko sax ku dul artiste. Mm. waaye ku dul artiste sax bëgg nga am way bi moom moo jee am mooy dafa yaru. moom moo de comme du comme du star comme du célébrité man mosuma gis nit ku mel ni moom moo jee waxul doxul yoonam nekkul ci dara. musuma xëy gis benn journal wala benn euh, ñu ne Momo Dieng moo def lii musuma ko dégg. mais léegi fii ah man dama lay laaj benn affaire yaag mës ngaa gis mbuus mu def dara dinaaw. musuma ko gis. non loolu musul loolu du mës a am ci àddina. Mm. parce que tamit xam suñu art bi ni ni ni lan la yayo deug deug deug talent ak di def ni mu waré lool rek la laaj leneen lo ci def rek yaangi leer ni yaangi leer sa bop te duma la mu Momo Dieng ci lool la mo Momo way wai la du ambianceur Momo Dieng du buzzer mané mané ma mo sax bu wayul day togn juga jeng moy bayam kan mooy magam alfa Dieng. waaw man moom xam naa ne tey dama laa teral ci mbaax parce li ma dugg ci Momo Dieng ngay. xam nga kon da ngaa laal laal. <laughs> bamba laal laal dama koo teral ci mbaax tey ndax. xam naa ne ñëw bu suñu kër fa fayer takk fa suñu mag awa jaaw fay. eh eh eh. laa ah, ah, xëy yaa xam lu baax eh, kooku sama sama sama papa la fu ma fekk ci xew daf may woy ba xew yi jeex. te du ko may su ko mayee bu paree danaa ma kaay. xam a ah. ba pare xale xale bu njool nga. Bamba booy takkati micro del ngay teg sa loxo parce que tamit du ma la fet. jabaru jàmbur na leneen loolu laal lu ne rek yaa ngi kii yaa ngi njaaloo. ayca wéyalal waxtaan bi ba tey eh, jili. waaw euh, ci projet yi. nee naa émission bi ma koy def émission bu gàtt sa neex te am solo. Oh, non mais lu lu lu lu gudd lu rëtt kii rek baaxul <laughs> yëf yi dafa war a gàtt daga neex. voilà waaw mais bu ko defee gars nag dafa teel a jeex. non gars naan dafa teel a jeex. non mais yow xam nga ne sama émission ak yow xam nga ne mënul yomb barki Serigne Bamba. Ah. loolu munul yomb parce que tamit duma la fen hmm. baax nga. Mm-hmm. ndax man lu ma yëkkati yombul. Mm-hmm. du ma dara. Mm-hmm. du ma kenn. mais wax dëgg yàlla lu ma yëkkati yombul yaakaar naa ay invitation yu baree baree bari jaar na fi. man bu ñu ma gisee ci télé rek maak moom moo ñoo ànd wala Papa Ndiaye Thiou. mais man en personne lu ñu may woo rek ma jóg dem. parce que li ma la wax sànq rek yaakaar naa ne wax ju bari ji. liggéey bu bari bi da ko. xool dama ne dama fiyaa boo amul loo takk rek yaan naa dee. Ah. dix laa ko yee. non man kay xam naa ne am na loo takk barki Serigne Touba Mbacke <laughs> waaw si Serigne boobu ngay dem ci côté kii bi nag. gosaas bi xom <laughs> fii am nga galaaj nag barki Serigne Touba Mbacke ay Bamba Bamba kii li muy def ci kër gi yëpp. tey moom tey dama lay waxal barki Serigne li ma la xamal yëpp moo ko waxee ci kër gi. man de fi yaa keroog ba nga ñëwee naan bamb bamb liggéeyal ma ko pour ñu dàq ko man damaa tiit sama xaw ma doon bamb bii nga wax yàlla bi ma tiim xam na loolu ndaka de bamb bii nga wax sama xarit bii kenn du ko dàq sëriñ bi maara bu ko liggéeyal kii ku baax la. ma daal Abdoulaye. léegi léegi mën maa la invité woon jeex na. non non man moom duma la fen yaa ma invité waaye damay wax a wax <laughs> sama mbaa ba doyal ba doyal du ma defoon xam nga teglee man fii daal man teglee gu ma samay tànk faa ma tegle samay tànk wax samay projet ah. waaw parce que nag fii nag dañuy wax waaye xam nga maa ngi la koy wax sànq hmm. ne la jili ñang fii xam nga ne barki Serigne Touba Mbacke bokk naa bokkuma sax à part grand yi. Hmm. jëli ña nga gën a ci kaw seen ci kër àddina. waaw ah, sën non du tendance bi bàyyi ñetti rase. ah du ma la fen nag barki Serigne Bamba sama posé xaar dama lay teral barki Serigne Bamba dama lay teral ci tabaski nii non dama lay teral li nga noonu parce man du la fen damaa bëgg sañ si. Uh-huh. bu ma déggee ku ci wàll yaa ni feneen sax damay ñëw. rax la rawatina nag nga koy wax jëmale ko ci man fiyaa wax ma lu baax waaw waaw mën a sañ si barki sëriñ waaw waxal lu baax waxal lu baax <laughs> waxal lu baax fiyaa naa la booleeg taala <laughs> naa la booleeg taala kobar ah. transitaire ah. boole laa tamit sama duwaañe bi Assane Wilane barki sëriñ Touba Mbacke sëriñ man non ñooñu moom duma la fen ah. ñooñu ñoo lay may 2 millions léegi mel ni ku la may café gee ngeen ma jox léegi Assane Wilane mais da lay dóor ba nga tëddal sa bopp. dégg nga waaw ba ma daw. Bamba taala kobar séeri nday faatu. Bamba te mu woo ma nag mu maa ko réalisé de. <laughs> non Bamba moom yow Bamba dama laa sëbe parce que yow Bamba liggéeyoon nañ la bañ nar laa dàq <laughs> man maa ñëw toj gàllaaj bi parce que xam nga nee nañ liggéey boo ko waxee day toj. day toj maa ñëw yàq liggéey bi waaye moom dañ la doon dàq Bamba taay amul fenn ay problème ñu naan la bul ñëw ak yooyu. <laughs> toogal. <laughs> yow kenn du la dàq da ngaa mën sa liggéey baax Ahmadou Bamba waaw barke ah. Serigne ba pare ki la tuddee moom moom turandoo moo julli woon ca géej ba waaw waaw ah, turandoo moo bind ay bind yu bari ba pare la ca des kenn gisu ko man Serigne Touba li mu bind maa jaaxal moo dem Mayombe mhm. moo dem Gànnaar mhm. moo dem Libreville mhm. moo dem Gabon turandoom moo jaaxal ña tey ndar lii ya tubaab ya laa ilaaha Serigne Bamba foo ñu bëgg a yóbbu kooku moo gàcceel tubaab bi. xoolal fa ngeen fa ngeen bëgg ñu bi lay wax. bi. Ah. Ah, ah. di wax ci sama dalu magi sama mag sama xarit. Hmm. nan ko dal yi xawna couleur rek nak mais dalu góor la. wa wa wa loolu mom la bëggoon te couleur na waaye dalu góor la. wa wa li dalam yi gis nga ko. wa gis na ko wa hmm, dom de Paris bi ciow bi tawé ko. wa dom de Paris bi yegg na ko. waaye nak nan ko baye mu xam nga ne ku ko gën xol yeewoowul ci réew mi ku ko gën xol fanaanul ci réew mi barki Seydina Mouhamed dafa fësal nag mel ni jiili xëy na dafa ëpp xaalis jiili ba ay dàllu 3 millions lay sol mais moom dafa fësal ba mel ni jiili waaye nag dàll yi am nay couleur mais xam nga dàllu góor mais couleur yi abaa nee na bu la la waaw non am na couleur. <laughs> am na couleur am na am na marron. Ah, waaw ay couleur la am na couleur waaw daal am na couleur. Mariasine daal am na couleur. am na couleur waaw mais daalu góor la. daalu góor la waaw mais am na couleur. am na couleur ñu bàyyi la nga nga nga nga wax projet yi daal di tëj euh, déwéniti waat askan wi rek baalu leen ak waaw di déwéniti ñëpp. Mhm. di leen baal àq sénégalais yi ndax nag wax dëgg yàlla tey ñu mel ñoom la ñoo mhm. ñuy support. fiyaa di ñu dooleel. par exemple saa yi sax nag ñu jël seen doole. Mm-hmm. financièrement financé ñu. Mm-hmm. ndax boo waxee ñu ni jili li ngeen di dund. Mm-hmm. yombul. te ku ñeme ku nekk yaa dañ laa dey. kon ñoom parfois bu ñuy dooleel. di ñu wax lu baax di ñu dooleel di ñu encouragé di ñu dooleel ci seen wërsëg kon tey yoon la bu ñu toogee fii tey. lu toll ni Tabaski ñu déwéniti leen di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal nag. yàlla nu yàlla bàyyi fii ba ñu koy fekkee ay ati ati at. Mm-hmm. at bu ñëw dàq morom ba. Mm-hmm. waaw ba pare nag yàlla dinu may tabaski ren bi nu mu neexee. Mm-hmm. yàlla def ci xéewal nii. bu déwén yàlla dàq bu ren. ñu ngi koy ñaan. waaw kii ànd ak di wax ni projet yi moom. incha allah rabi ay surprise laa koy def. ay surprise waaw ay surprise parce que nag ku ne xam ne ne ah, sama mag. waaye sama papa di sama xarit Alhaji Alsaan Mbay mhm. moom man bu may sol ay jeesñeer. griot des VIP. griot des VIP. kooku daa gën. oh. kooku waywul kooku moom barki Seydina Mouhamed xoolal. waywul fenn ma ki yaa kooku moom boo waxee ci moom ma teral la léegi barki Seydina Mouhamed. ma caméra yi fay. kooku boo waxee ci moom ma teral la léegi. Euh, géwél gu gën géer Maane Mbaay séeri Maane Mbaay. la mu woy bàyyi xel Maane Mbaay. Oh. loolu léegi moo wax la leen ah. saa yoo ko sinabatee am nga 20000. saa yoo ko sinabatee am nga 20000. Bamba yow mi li ngay réagir nii may li ngay réagir may wax ci Alsaan Mbaye rek am nga 20000. bàyyi xel maa ne mbaay. maa ko moom Alsaan Mbaye sama papa maa koy maye xaalis bi maa ko moom maa koy maye Bamba am nga 20000. yow boobu saa yoo sinabatee moo xam bu gàtt la bu gudd la moo xam bu yemambaay la am nga 20000. sama papa jooju yàlla nga gudd fan mhm. yàlla nga yàgg loolu séeri maane mbaay mhm. baax ci man mhm. yërëm ma xam sama dayo Alassane Mbaye moom it bokk na ci ñuy tax maam xaalis waaw ah, parce que moom moom moom moom li may jox ci xaalis man jili yayoo ma sax loolu parce que xale laa nag papa bàyyi di ma jox ay millions yow foo ma fekk fu ne teral ma sagal ma jox ma ay millions imagine verre yi ma sol papa di tax ay montre cinq cent mille papa bàyyi leen di ma def ni day tax ki yaa di jooy rek xam nga bamba di mer xam nga te waroo leen def loolu papa yi xam nga parce que instant yii nii kii yaa jooy na sànq mi ngi ma naa ma jili bu nu kiyee faaw ñu waxtaan te instant yii nii rang bi dafa seere ah. kii yaa faaw nga dem ci baax ma parce que fii yaa ma. <laughs> waaw tëj sa émission bi man maa sonn ci kii léegi kii joxatuma ne ma léegi damay xas. ay ca jërë ngeen jëf téléspectateurs yi jërë ngeen jëf yéen ñi xam ne euh, gis ngeen durant tabaski bi yëpp euh, Fia demal na leen ci jaaykatu tissu yi ci jaaykatu parfum yi ci jaaykatu cheveux yi parce que yéen yéen ko moom encore une fois ngeen baal ma àq na parfois kat euh, jili ma toog ci plateau bi wax loo xam ne day naqari nit du wax lépp ngay wax mu neex nit waaye dañ nag peccum liir bu neexee rek day jaatee ca mbagg ya waaye man kenn du auditeurs yi téléspectateurs yi may seetaan man 5 TV bi ma fiy ñëw amaguma vingt ans yu mat bi may toog di wax télé amaguma 18 ans yu mat mais suñu boroom nag mooy gis nga bëgg dara mu jàppale la ci parfois dañ nag ma yow doo géwal mënoo way mënoo taasu mënoo fecc mën na leen suñu borom du mayee lépp ndax mën na ma may wax te wax ji may wax yu ma waxee def naa ne man maa ngi def ay erreur mais jàpp naa ne ba ma dalee wax ba léegi waxaguma luy naqari nit ki kon maa ngi ñaan yàlla ni may sàmmee may wax loo xam ne saa yu may wax rek day neex melu ma fi nenn nag duma benn animatrice euh, tojuma fenn mais nag sant yàlla bu ñu nee der suñuy téléphone woote nit ñi wuy suñu fekk suñu waaye bu ñu waxee nit ñi dañu bàyyi xel di remercier ñi xam ne ñooy réalisateur yi ci kër gi kër gi bàmb euh, ki jili ah. ay xale rek ñoo fi nekk gisoo fi benn mag gisuma fi benn paa gisoo fi paa gisuma fi paa rek ay ñoom Bamba laa fi gis ak ñeneen ñi nekk ci réseau bi ñeneen ñi nekk ci réseau bi xam nga ay jantal yoo xam ne nii daal wax dëgg yàlla duma la fen bu ñu ñaanee mhm. suñu borom nangu mhm. bu ñu liggéeyee suñu borom jàpp ci parce que mhm. nag suñu borom xale la àndal. Mhm. waaw parce que nag xale mooy avenir mooy lépp. Mhm. sànq nag yaa ngi doon wax ci boo boo waxee dafay wa boo waxee dafa war a neex sénégalais parce que xam lu tax. Mhm. am nga charisme bi. yaru nga. xam nga li nga war a wax. doo dérapé. waxagoo a saaga te chaque jour jii léegi nii day saaga. xam nga te kenn waxuma dara. kon yow mii di wax lu baax. di def lu baax ba pare am charisme bi. baax yaru tabe kon. barki Seydina Mouhamed da ngay avancé. barki Seydina Mouhamed da ngay avancé. maa ko wax ci kanamu écran bi ci kanamu Bamba da ngay avancé. te tele bi yàlla na sunu borom teg leen loxo. barki Seydina Mouhamed waxuma rek ba mu avancé mais ba mu nekk ay télé télé télé. Mm-hmm. waaw. loolu laay ñaanal yàlla loolu laa leen di ñaanal yàlla te yàlla na ko suñu borom def yow moom doxalal bul tiit bu ragal ayca tenue bii nag euh, ku ci jaar sama meilleure amie moo ci jaar am ma ma meilleure amie ma baam ba jëlal ma loolu rek ah loolu moom man maa ko maa ko bëgg euh, xam nga fi nga koy jëlee Bamba dafoo defoo jàpp la ma ngay menacé Bamba. ayca euh, tenue bii nag euh, bu dee dàll yi naam shop moo ci jaar euh, groupe mafia bi man samay xarit yi may àndal. ñoom ñooy jàpp samay émission dàll yi naam shop moo ma ci ja moo ci jaar borom yaay ju baax ñuy jooy. fi yaa yaa a sañse nag. voilà sama xarit bi am maa dafa dem ba Turquie ne ma fiyaa am lii solal. dee ko lakkee yàpp. Oh. ma ne ko lii moom moo ko lakkee yàpp fàttali vay day nag lii nga sol nii. <laughs> Oh. donc di remercier sama xarit yi xam ne ñoom kenn ñoom ci man bëgguma waa Bargny Eh, yéen ak may jappalé yéen ak may ñaanal ma nek seen fierté kon yaakar gi ngeen am ci man bama yëkëti drapeau barñi indi ka dakaru yalla na bu yaakar tas man ak yéen on se connaît di ñaanal Adja fay nabu yéen ñëpp sama xariti ñom wëré geey gay fi ya di leen nuyu walé ñom parce que doguma la sax yalla bu la yalla dog waye ah. xam nga ne barñi man dam fa am ci dëgg la Bargny ñoom Bargny dëkkab lébu la barñi barñi barñi dañ ma bëgg ya walé bu do walé yi dañu baax bi yaay billahi barñi dañ ma bëgg man dañ ma bëgg ba ma yëg dañu def la da ma def ni mo Dieng mhm. bari ñi ma ngi leen di nuyu di leen bëggee di leen ziar seen doom ngi ni lu ngeen ko jàppale doyul mo leen fi teewal ba pare mën limi def lool yalla la yalla yàlla ay ayca kon euh, jërëjëf jili contane nañ ma gëna contane waye nak di la wax ni benen yoon bul demati gossage parce que bamb mi boko ko won man xaw ko won te kërok bi ngay wax serigne bi ma ngi nan ko serigne bi ko ku bon la dimbali ko rek mu dakh ko naka te bamba gi man dal bamba yalla bamba yalla nga fi gëna top ay toog yalla nga fi gëna top bye bye wallahi demee ki Fish. une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille Fuyep, yëpp ñu ko Sénégal si anam yu sell naturel Jusito pour seen goûter dormi. collation ca bureau ba ngénte maanaam bépp jus orange ngir may actonus. ak tonus jus corossol amna, na l'ol si yaram ak ay am solo gingembre bi moom dafa l'ol lool si gour ak ay vertu baax itam si organisme Puibina bi nag day bar tooy baax si yaram tayit yi jus oh, oh dina yok sen katan bolé ci vitamine rek la ñi bëgg naturel vito excellent pour fête bu monti doon te si yaxu gune ak emballage civilisé Tour. ak jus vito da ngeen am choix vito jus et so existe en bouteille de 1,5 litre et 33 centilitres vito fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06